wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokki daara asalaamu aleykum wa barakaatu yal na nu yàlla may dund gu barkeel yal nañ fekki déwén te weesu ko ñu fekk woon jataay bi daaw te wuute ko ña ca feebar ba ñëwuñu yàlla yàlla saafara leen ña ca tukki ba ñëwuñu yàlla na ñibbiseeg jàmm te indi dara ña faatu ba tax ñëwuñu yàlla na borom bi yërëm leen maa ngi wax ñetti kàddu ci sama fukki minit yi maa ngi bëgg a wax ñetti kàddu ci sama fukki minit yi xay na ñett ñett muy juróom-ñeent ma dese benn ne wasalaam kàddu gi njëkk gi mooy sunu thème ren ni ko alaaji Cheikh Ndindi waxe bi muy tàmbali muy mawdu beelu seen te alxuraan junj ko alxuraan ne wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka alaaji cheikh njaay cheikh ndindi firi ko man nag dama koy tawil mooy borom bi nee na wa man arada képp ko déconnecté an dikri ci sama réseau bi fa inna lahu fu mu toll day am maïsatan réseau boo xam ne danga day buree rek doo woo kenn jot ko kenn du la woo jot la kon nag daara ji nee na ku déconnecté woon connecté waatal ku connecté wutoon connecteel benn réseau moo fi am mooy zikrullahi mooy alquranul karim ku déconnecté woon connecté waatal ku connecté wutoon connecteel réseau kat baax na ci yëf yi ci téléphone yi boo wootee jot bu la woo jot la su fekkee crédit nga ca baax na ci de te itam sunu téléphone yi téléphone bu ci xëy te nanguwoo connecté wu ci courant bi balaa ngoon a jot sa borom mere la loolooy kàddu gu njëkk bi kaddu ñaareel gi incha allah xam naa am na ci yéen yoo xam ne këyit woowu ak na ci ñoom këyit waa ngi tudd wajaahidu këyit wi ñu ngi ci bind wajaahidu bu nu wooree benn semaine bu ñaaral ba samedi joojee di ñaarlu samedi sunu magum daara aas ndaw nee na ak waa daara ji nun ñëpp nañu daje grand théâtre def ko petit théâtre ñun ñëpp nañ daje fu ñu tuddee grand théâtre nu ànd def ko petit théâtre luy petit théâtre mooy nu fees ko del luñ fay wut dañoo am wenn sas dañoo bëgg bis boobu ñu dajale junniy million junniy million la daara kokki soxla ci bis booba lañ koy lancé junniy million nag junniy nit ñoo koy def ku ne joxe million junniy nit ku ne joxe million dégg naa nag am na ko joxe ñaar am na ko joxe juróom waaye daal junniy million leen soxla ku munta joxe junniy million ku munta joxe am million takk ko da ngay seet jenn waay nga jox ko loxo mu jox la loxo nga joxe deux cent cinquante mu joxe deux cent cinquante cinq cent mu joxe cinq cent ngeen am million cinq cent cinq cent ngeen am million yéen ñaar su ma amoon benn nogay am benn bu ko boole muy cinq cent cinq cent muy un million su fekkee mënuñu ko minimum ñeenti nit ñeenti nit joxonte loxo deux cent deux cent deux cent deux wala deux cent cinquante ngeen am yéen benn million takk indi ko ci wajaahidu wajaahidu song leen song leen lu ñuy song fii sabilillahi sas bi may wax nuñ koy songe bi am wa anfusikum mbokk yi su boobaa na Sénégal yépp yëg ne daaray kokki dagale nañ junniy million muy milliard démb bi ma ñëw ne dafa am soxna su ne ma man de du ma mën a ñëw ren waaye am na gone gu ñuy wax weef danaa ko yónni ci yow yónni na ko ci man nag ba jël naa yónni ba mu ko yónni woon ci man waaye sama yaram daw na lool nag mu ne moom du mën a ñëw ren waaye dana yónni gone gu ñuy wax weef daara ji am na ñaari gone balaa ndaje ma ku ne weef yëtal ma lii daara ji mu indi ko ku ne orange ma ne yëtal ma lii daara ji mu indi ko publicité wu ma nag looloy kàddug ñaareel gi kàddug ñetteel gi bu ñuy daje ndaje ma man yaakaar naa duma mën a am million waaye fii ma taxaw bëgg naa fee dajale million jox ko muy sama sas fii ma taxaw dajale leen ma million ma dajale ko muy sasu Alioune sàll ci junni million million ya képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo waaw Cheikh Dieng moom may batterie nii ah Baye As ñëw na de andi na xaaj bi Baye As ndaw ku ñëw bu déwénee yàlla na nga ñëw ku ñëw ñaanaluma la daaray kokki nag soxlawul cent franc soxlawul cinq cent ku am pièce toogal ndaw jërëjëf bu ñëpp defoon yow de dinaa sama sama million bi mat Pape Serigne Fall ca Balsaan ku ñëw bu déwé ne yàlla na nga ñëw ku ñëwut ñaana lu ma la waaw waaw sama mindi sama trois minutes li ma dese waa kay jërëjëf na ñëpp ñëw bëggaa naa benn ku mel ne Ndaw xam nga As Ndaw nag bu fekkee Xaadim Mbàkke bu Cheikh Awa Balla mi ngi fi bu ñëwee joxe 500000 ma am million bu fi soriwut soxna Ayda Mbodj ji dégg naa ko fi soxna Ayda Mbodj ji dégg naa ko fi ba muy nekk ministre laa gëjoon ca ministère ya na ñëw moom sama trois minutes yi balaa jeex waaw kay ku ñëw yàlla na nga ñëw bu déwénee ku yorub 500 nag mën ngaa toog géwélub Kawlax jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo jiite AS bu fekkee mi ngi fi wooleen ko yaa def waaw ku joxe na wàcc ku joxe joxegul na ñëw bu kenn wax duñ du mat loolu ëpp nay wax Ziguinchor nga jóge jërëjëf jërëjëf caméraman yi ñëw leen caméraman yi ñëw leen seetaan baaxul ci ndaje sunu borom nee na xëy day yàq day tas kër xëy tëdd day tas kër wa man yu jaahid oustaz sëñ Mboum mi ngi la indil 500000 léegi. sëriñ Mboum nee na mi ngi indil 500000 kon dem lee ma matal de lee ma matal kon sëriñ Mboum nee na mi ngi may indil 500000 kon de lee matal amin mu indi 5000 jox am 5000 la nii jërëjëf ku ñëw bu déwénee yàlla na nga ñëw. waaleykum salaam maa ngi nii. gis nga ma tey en live pour les caméramans sëriñ maam Cheikh Mbacke AES jërëjëf yàlla na nga ñëw bu déwénee yaa joxe lii waaw jël jël sot sotal ci mbës gi sëriñ Babacar bu Gambie na préparé bu Oustaz Alioune Sall pare rek incha allah 3 minutes rek laa dese 3 minutes rek laa dese Babacar waaleykum salaam yaa def nii yaa def nii Ibrahima Ka ah, ah, ah, euh, ci délégation malienne bi moom it mu préparé yàlla na nga fi yàgg ñëw waaw waaw ko joxe na wàcc baax na gis naa ko ku joxe na wàcc jërëjëf jërëjëf kon as ndaw joxoon na ma 500 nee nañ ma sëriñ boobu mi ñëw jox ma 500 kon lee ma matal abu jandal mbuur la jóge nee na moo taxani woon soxna rakki jërëjëf kon xam naa ñi ñi dajale ñu bàyyi leen ñu àggale ayca ñu bàyyi oustaz Alioune Sall allah mu dellu place jeexal kàddoom waaw sama kàddu gi may jeexal rek mooy Ousmane ibn Affan ci joxe la amee lam am Ousmane ibn ci joxe la amee lam am lam am mooy maa darra Ousmane amalun def yàlla lu ko naqari kay takkal ma mbuus googu te indi geneen mbuus <laughs> li ci tege nag mooy fàttali rek bu nu wooree samedi ja ci njëkk ja ca tege nun ñëpp ñu daje grand théâtre ku ñëw ngàbbal million ku mënta ngàbb xaaj ba ku mënta ngàbb xaaj ba àndal ak ñett ak yow mu ñeent bu nga ñëwee mu mat salaamaaleykum wa rahmatullah yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. Eh, defal ko fii jërëjëf eh, Oustaz Alioune Sall yàlla na yàlla fay la yiw. ci taxawaay bi e, comme ni mu ko naan defee at mu jot rek macha allah yal na yàlla yàggal taxawaayam guddal fanam yokk wërsëgam yokk xam-xamam gën barkeel dundam kon. mu ngi jox e, sëriñ Babacar Mbaye muy wax ci délégation gambienne mu teew ci micro bi sëriñ Babacar mbay di directeur mudirul madaris al azhariya directeur école azhari yi mu ngi ànd ak délégation bu am solo euh, ñu ciy tudd Serigne Moustapha Diop ñoo ngi dalal délégation ñoo ngi waaw as ndaw daa wax ne naa wax ca kaw ne Serigne boobu lim waxoon ne dana ma ko jox muy mille joxe na ko kon ñaari 500000 mu ngi foofu léegi tey mu mat incha allah.